waa Fall Fourrière a ngongu kookoy Fourrière ak waa Grand Yoff ñu ngay sibile hélas bu jën kayre maa ngi lay béggee cey Fourrière Fourrière waay waa Grand Yoff Arafat cité millionnaire lépp ci Grand Yoff xool ko mu ngoo ngay daw Fourrière a ngay daw mu ngay daw ca ndënd ya la waaw cey Fourrière borom Grand Yoff loolu neex na faal Fall yàlla nañu yàlla mural ci coronavirus bi Lamine coronavirus yàlla na ko yàlla jeexal waaye yaakaar naa mbëri daal defe naa Siteu la ak Mol 1 Siteu moo nekk écurie Malick Sy Siteu bu Njoon ak Mol 1 bu Gana Seras a waa ji kay moo ñuul sax mooloo mi bokkoon ci kalamu Gaston ba. waaw moon la sax du mol de waaye moon la dëkk ba mu dëkk tudd moon. ah moon la moon daa am dëkk bu ñu naan moon un. ak moon deux loolu mu ngi ci région mu ngi ci siin Saalum bi. Ah, ci île yi waaw yow itam da ngay xam ne séeréer laa nag Lamine. min nga Saalum ak Kajoor. ak Bawal ak Njambur. Sénégalais la ah bu baax ma xam looro sa dëkk ba. miin nga Jolof. xam naa Jolof ndax dem naa ba Daara Jolof. dem ba dëkk yooyu ko wër. kan mooy damel di Kayor. damel di Kayor day fàtte naa ko waaye bu ma ko waxee ma jël. damel di Jolof. damel di Jolof itam jàppuma ko de Lamine. buur ba Jolof. buur ba Jolof a ah, buur ba day moom dégg naa tur wa de waaye fàtte naa ko de. damel di Kayor mooy mooy mooy ki waa ji. Lat Joor Jóob waaw mooy damel di Kayor Lat Joor Ngoone Latiir. waaw wax nga dëgg. maa ko kon ñaari mbër yaa ngi lewaatoo. booy Loora suba a bëre. waaye booy Loora waaye lambi suba jërëm nañ ko Lamine lamb joo naroon a neex balaa nga ko def da ngay amit waaw wallaay Lamine. borom nee na tuxi tuñ. tux ay tuñ a koy def. balaa ngaa def dara wéral yàlla ñu yàlla may wér. te Lamine yéen jàpp ci daa gën a wóor Lamine mag du danga am talu. lu wóorul bu ko def. ala nga xam ne danga am baaxul sax na tey. waaw ngay waaw nga am benn paan benn di danga am talu ba mu tuuru. Hmm. bu keroogee nga xam ne yàlla julli rek la santub jullit corona bi daal Babacar yàlla ñu ci yàlla musal. waaye corona bi dina jeex sax bu soobee sunu borom. ak a xew day jeex. day jeex sax balaa la nañ kennal yàlla Babacar. waaw looloo gën a wóor sëñ Cheikh waxoon na ko almaktum. balaa bay di wey mbuus. mais Lamine ku wax loolu kuy Modou Lamine. nee ko seetaan lamb te bàyyi. Lamine loo loo Lamine. lamb rek yow. waaw waaw Lamine de waaw loolu am de Lamine wax dëgg Mbaye ko njëkk a gëm ah, loolu la yàlla de jël na tànk ba da koy mboot moon dina ko daan daan na ko away ah, da koo kottu teg ko ci suuf waay moon daan na daan na Siteu bu njoon mhm. ey waaye Siteu daanu na Siteu daanu na kii mooy Daouda Diagne Assane Ndiaye ngi ci Daouda laay njëkk Daouda bëgg naa la fay naa la Babacar Baol Production Ibab ba arène nationale lu waral ànd bi sa diggante ak lu ko dëgëral. bu dul làmb sax danoo war sama deret la kii nijaayam làng laa kon donc loo rek doy na yàlla dogal na ñu bokk bëgg-bëgg muy làmb yàlla nattoo ñu ko sax laay wax jubluñ ci dara lu muy bëggal amateur ndax awaskan boo ci nekkee da ngay seet leneen ngeen leneen leneen bëgg nga cee dox te Sénégal xam na ne làmb moom demee na noo xam ne ñëpp bëgg na ko ñi ciy def suñu waar béy suñu waar rawatina moom mi nga xam ne moom rek moo dee ci bi saa bu toogee te bëggaluñ rek moom amul ko neex. moom dégg naa daan na bëre sax. waa kii loo aw dafa rate mbër mu rate la nag mbër am na gars yoo xam ne laale naa ñoom xam nañ mooy kan waaw mbër mu naa jëm na fee yéegi gaal tamit mu të. waaw moo def na lu ne. kon naa mbëkk dem Espagne max la dellu garaaw gis nga xam nga de Sénégal boo ci nee réew boo ci nee da ngay am ambition am gëm-gëm boo ko dee suñu borom day dimbale foog muy am lu baax parce que yàgg naa dimbale jayuma ko yàgg naa dimbale yàgg naa bëgg lu baax donc kon su nee ci làmb bu 2004 ba ba 2020 du mérite sens du sens mérite la donc loolu moom dañ koy seereel bu dara dañ ko seereel ndax loolu lañ xam ci moom duñ wax lu mukk loo néer ci ñun donc donc moom loolu moom lu nekk ci moom la et puis mi ngi ciy béywaay yoo xam nga làmb moom ku dugg da nga bawal production loolu moom loolu la yàlla dogal incha allah Assane maa ngi lay maa ngi leen di siyaar baax ba am nga jàmm maa ngi sant bu baax a baax naka ngi sant rek sa digganteeg Daouda non Daouda c'est mon ami sama ndijaay la sama deret la sama mbokk la taxawu na ma guddi taxaw ma ba bëccëg 2004 laa njëkk ànd ak moom ba 2020 kon loolu lu yàgg dëgg la te du wor gëm na boppam du wax lu ñaaw maa ngi koy gërëm bu baax a baax li ma yéene ci moom xam na ko yàlla na ko yàlla motali ànd bu sincère la bilaay laay tey su ma la laajee maanaam làmb ji yaa tëgg tey lamb tombeek la 14 mars coronavirus ñu koy wax ci réew mi yàlla dogal président jël. ay mesures que ni làmb dañ koy aj wala manifestation publique yëpp loolu bi nga ko déggee la def. waaw lépp dañ koy sant yàlla rek xam nga lu yàlla dogal da koy nangu te nag murit day nangu ndigal ñun ay taalube leen rek nekk ay ndaw suñ déggee ndigal dañ cay dem dañuy liggéeyal suñu réew moo tax lu ñuy def ñu koy tasaare lu ñu am dolloo ko ci réew mi su réew mi amee problème dañ koy nangu. te lii nga xam ne moo dal président ne ci bopp bi feebar dal ci réew mi ñu ngi koy encouragé di ko ñaanal yàlla bu mu ci am défaite yàlla na ci am victoire ñu ngi ci ginnaawam di ko encouragé bu baax a baax di wax sénégalais nañ muñ boolewaat xol yi xam ne ñun ñëpp benn lan waay waa ndeysaan mu mel li ndigal la bu Doudou Baka Sarr ak Tafa Leer numéro 2 école de Libéré John waaye ndigal ak Tafa Leer leer ak ndigal ndigal ak leer waaye li ma jaaxal faal entraîneur bee toog ki nga xam ne nii moom moo yor ndigal bawal mooy kële toog waaw kooku toog bawal la dëkk dëkk bi ñuy wax mbomboy sama goro la de moo andi ndigal bu dudu baka Sarr kële toog ne la Iliman Sarr ma le toog bawal la dëkk ndereb moo andi tafa leer lamba ngoongu ñaari mbër yaa ngi ca géew bay lewaatoo quatrième combat Mohamed Mohamed te nga bañ doon bandi yow turu rëy nga yor ah giri waa giri nee bandi la giri Bordeaux doo bandi doo vrai bandi yow giri maa ko wax eh jëli na ko jëli na ko jëli na ko ñu jàppante caxabal da koo bëgg a caxabal caxabal ba waaye loolu danga koy téléphoné bëre bette. ban émission laati woon wax ma. Balla Giri la lool. waaw Balla Giri hee ay waay waay. Balla Giri. Lamine xàmmeetuma leen. mais Papa Ndiaye am na mag ju rafet Mouhamed. waaw mu ngi koy rokos Papa Ndiaye am na mag ju rafet. Ah. laa ilaha illallah. Ndiaye article Ndiaye Odexia o. Ndiaye maa ko yóbbu Lat Mbengue. eh booy da ngay daanu. booy dañ lay wër ndomba dinañ la tànnee arbitre a ah, a ah, a ah, a a a coow toppal lii coow coow coow coow arbitre mbaa duñu bërewaat est-ce que bërewaat gën ta wóor waaw waaw waaw ah way laa d'accord ñëpp a ngi tàccu arbitre eh, eh. eh, eh. waa lu xew hee arbitre nee na Tapha daan na xoolal ndigal entraîneur ba nee na ko bul mer nee ko bul bul xadaañu entraîneur ba nee na ko bul def dara lay lay la la arbitre ba mbaa defut ñaaxum mu ñaax na ci am ay sitoor yu bees waaw ay sitoor ak i Ngom ñi ay nëba maay lañ te njàmmee leen andi de directeur administratif waaw njàmmee leen andi moo leen andi de nañu jar na waxtaan nañu waxtaanaat waxtaan a gën cim réew ah nañu waxtaan moo gën de président sa balaa jël ay mesures daa toog waxtaan jël taam kii mooy xaadim jaxate Baol production la bokk sëñ Dame mbokkum Assane Ndiaye la tey ñoom ñooy mujj a tëgg fi anatana xaadim maa ngi lay ziar. maa lay ziar bu baax Babacar. sa diggante ak waa Baol production. waaw dafa yàgg rek loolu suñu diggante yàgg na trop waaw. tey làmb ji interdit nañ wala sax manifestation laay wax en général yow en tant que ku bokk ci structure buy organiser làmb loo gisee loolu. non maa ngi dégg léegi président di wax waaye moom bépp dogal rek ñun ak moom bi ni koy déggee moom. bépp dogal bu ñu jël rek ànd nañ ñoom waaw daam ziar maa ngi lay ziar bu baax baax sëñ daam yow parcelle lañ la xamee ak Papa Sow lan moo la boole ak Assane Ndiaye Assane sama nit la yàlla boole ñu ci combat Papa Sow ak mu nekk ànd bu rafet après ñu ànd si jàmm ba pare mu nekk sama mbokk bool bool ma koy jàppale mu may jàppale ci lu bari ma koy conseillé mu may conseillé ci bari mu def ma rakk ma def ko mag quoi loolu tax ñu ànd ci ba nii quoi moom ba léegi daal ñu ngi sant yàlla bu baax daal suñu ànd daal yàlla na yàlla musal ci seytaane daal loolu laa mën a wax. structure Baol production noo gisee taxawaayam ci làmb. non macha allah mi nga avancé bu baax ndax boo xoolee daaw amuloon Baol TV ren am na Baol TV dama koy wax rek déwén muy gën a innové rek muy gën def leneen loo xamante ne amul woon ci làmb daal man lool laa koy conseillé souvent quoi. looy conseillé nit ñi ci bi nga xam ne tax nañu interdit lépp luy manifestation publique. ah li may ñaan daal mu jeex balaa le incha allah. ndax ñun amuñu lenn lu dul le 5 ndax suñu mbër mooy. Papa Sow Siteu ba. voilà ñuy ñaan yàlla Papa Sow daan Siteu jël bu set wécc incha allah dañuy ñaan daal feebar bi jeex balaa le 5 ndax le 5 ñoo ko moom incha allah ñoo ko moom. moo takk lu xonk li écrit Bawol mbooloo la jóge Mbaye Ndewaan na ko indi étudiant moo puy deux bu ressortissant de Fatick. eh daw na jëli étudiant ñu mbaar ko xeex day jeex de waay lii gaaw na di waaye ñii moom gaaw nañ di rapidité. efficacité puy de ak ki nga xam ne mooy étudiant jàppoo fàq na ko mu bañ jóg nañu waaw ay xale bu ñu dajee dañuy bëre ay xale faal bu ñu dajee dañuy bëre ay gune bu ñu dajee dañuy bëre def fulaak jom fayda safal ko mu saf sap bëre jóge fa waaw étudiant da koo bëgg a jaay doole waaye puy a ngi koy de étudiant puy puye nu wan ginnaaw étudiant yor ngeen bul xonq li dinañu bëre ñu nga ca quatre appuis arbitre quatre appuis am na de quatre appuis am na de daan na ko far far na ko daan mu jaaxaan faal daloon quatre appuis far sax jaaxaan am ca far puy daan na ko ñaari jël la ko daan boo xoolee étudiant jëkk naa def quatre appuis waaye lee moo gën a leer mbay ne waa na nga koy yëkkati yëkkati ko yóbbu ko mu sangu ji moo gën bëggewaat naa la dellu ziar bu wér man moom li ma lay laaj combat yi ngay tëgg nii nii fàllu yaa taxawal ci ah, Ada Fass Tapha Mbeur caatu ngewel Mor Kankang fàllu loolu mooy coow li fi mu nekk nii ci dëkk bi. waaw mais des na leneen Babacar loolu yaa ko wax des na leneen loo xam ne nii mooy dàq loolu bu neexee yàlla. loolu anamu. mu ngi ñëw ci yoon bi ñu ngi ci yoon bi di liggéey xam nga gars yi boo leen liggéey buñ ko yëgee rek dañuy daal di ay galgal galgal loolu la bañ nag comme ni ñu def ba caatu ngewel Kankang taxaw ñu def ko ba ah, Ada dafa am ba taxaw ñoo ngi ci yoon boobu ba leen taxaw liñ tëjee woon daaw la ñu indiwaat andi ay xale yu am jom nag ndax am nañu yaakaar ne daaw gis nga li ñu mais ren am na yaakaar changement dina am te nañu indi la ñu indi woon nañ def cinq grands combats bu neex yàlla wala six. Wuli de da nga ci combat. waaw Wuli de ñu ngi wax moom ci combat ak doomu dàngu ci ñoom ñaar dese wax nañoo ak ñoom ñoom ñooñu ñëpp bu ñu d' accord incha allah rabbi yaakaar naa suba suba bu leen neexee ñu finaliser combat bi. moo téye bi. waaw problème mu kase nag vraiment ñun wax nañ leen fi ñu mën a yem ndax fi làmb toll ñu gis ne loolu daa ndaw a ah, bu ñu xalaatee ba gis ne enchaîné na leen bu ñu ñëwee amul problème mais ñun wax dëgg yàlla mënuñoo yokk benn pas. Mhm. mais tey boo nekkee ci làmb di promoteur coronavirus bi tax ñu interdit manifestation publique yi ngay tëgg ay làmb lool loo ci xalaat yow. waa di ko méttiwul bu baax Babacar di wax ne tamit nag loo xamante ne nii la mënuñu ci dara ndax jàngoro joo xamante ne dafa dem ci ay pays yoo xam ne ñu dépassé bu demee laal Espagne ay Italie yooyu ay Italie ay États-Unis yooyu yëpp mu sonal leen lool kon yaakaar naa ñun bu ñu jël suñuy matuwaay waxuma sonal mais mën na ñoo rey kon li président def dañ koy rafetlu bu baax vraiment métti na mais teew dañ koy rafetlu di ko félicité ndax njiitu réew noonu lay def ndax tey jàngoro ji bu yaatoo mën ñoo lor ñun ñëpp ñu ciy wax kon tey pour mu bañ loolu mu def lu mel noonu dañuy def lu dul sant yàlla di wax sénégalais ñu gën a góorgóorlu gën a jël seen ay matuwaay ba nga xamante ne ni tey lu mel noonu nañ fexe ba du yaatu ci réew mi. ñu ngay waxante faal xoolal fourrière moo yor mayo Barça bi noonu bébé Dieng na ngay waxanteeg moom boo xoolee ñaari ndaama lañ kii ñuul kii xees waxante leen rek te bu kenn laal kenn bébé Dieng ngay dellu ci mukaayam mu ngoo ngay daw ne na supporter yi jóg leen waaye wàllu teen la faal kii moom xool ko li mu di diri. arbitre soufflé na Lamine. la wax ji Fara jam kii koo dàq. Fara ko. loolu rek a baax te neex. ñaari mbër koy topp de Boka jël na ko Boka dimle dimle à gauche Boka à droite maam leesa ko indi dimle nguy jot ko indi. maam leesa ngay bëre waaye ca bind ba. eh daan nañu ko. la ilaha illallah da ko faq. mbër daanu. Boka mi mbër mu mag la de. Boka daanoo gul. bëre mag lay bëre de. daanoo gul Lamine. na ko. dugal ko. maam les kere na beneen sàmm li waare na waaye déggoo li ma la daa bëri mbër. Ah, waa bébé jéena ngong. gars yi wër ko. moom nag macha allah mbër mu bari renfort la. ndax boo xoolee waa Bawol yëpp koy topp. ak waa Soumbédioune. seen naa fi sax Mbaye Diouf Mbaye. sa booy bay bëre tey sama booy mooy bëre tey. sama doom sax laay wax. daa mel ni bokk nga ci ñi ko formé de. waaw man maa ko dalal ba ci man la dalee ba siin numéro yëpp waaw. xalaat nga mu génn ci fourrière. ci kattanu yàlla da ciy génn incha allah. Uh-huh. Mbaye wax loolu nee na da ciy génn. mu ngoongu taxaw. bébé Diène. Diène ziar naa la. wooy sëñ Babacar delloo ci loo ne. waaw ñu ngi nii rek ñu ngi sant. est-ce que sa xel dal na ci kii mook fourrière. waaw bu baax bu baax kii moom sama xel day dal ci moom ak ak ñëpp waaw. waaw macha allah sama xel dal ñu ngi koy ñaanal daal yàlla moo loolu la wax yaa ngi koy takkal ñoom Brice li numéro 2 Baba Maal waaye Baba Maal a ngi waaw Baba Maal ci loo ne. waaw jàmm salaam. Baba Béy di Maal. waaw noonu la ko moom la de waaw ñu ngi ñaan sama. da ngaa gëj a bëre. waaw damaa gëj bëre kon am naa ñu ngi. waaw loo takk nii. lii waaw lii gaa ñoo ma jox rek bàyyi bu mu takk ko waaw noonu la ko <laughs> lii mooy cumukaayu bébé Diène yow mel ni ci géwél laa la xamoon wala. bab si sëñ Fallou man la maalaw yàlla baax na ci kanam sëñ Fallou. maalaw a ngi nii waa waa waa wax nga dëgg boobooy cumukaayu bébé Diène waa Medina ak waa Bawol ñoo ko andi. am na lu ko maalaw di jox mbër maa lay bëgg. waaw maa lay fay. ci loon ne. waaw ni da ngaa pare fi mu nekk naa waaw. sant yàlla waaw. combat bu gaaw wala bu yéex. waaw lu mu aajoo rek. waaw lu mu aajoo rek. Faal ne na aajoo. mu ngay cëkki cëkki. yor ay reen. cey Faal. doomi Medina. xale Medina. waaw mu ngay échauffé wu lii mooy échauffement da ngay tàngalu bala ngaa bëre waaw xaaral ma laaj benn technicien lu mu gis ci combat bi Fall Zal ba Zal bëgg naa. Babacar maa ngi lay ziar. gis nga xale bi échauffé wu technicien nga loo gis nii loo ma mën a wax ci Bébé Diène. macha allah dafa daw. def mouvement ma ne xale bi macha am na doole ndax xale la war a am doole waruñu woon laam-laame ndax am na doole wala amul doole sax heure daa waroon fekk mu bokk ci mbëri chaque jour euh, lu koy ko kombaam fukki jeunesse moo koy yóbbu su sérieux kenn mënu ko tëree doon mbër. mais ki muy bëri loo xam ci moom. Fourrière ndaanaan la mbëru arène la nit ñi ne la yaa yaa ko mën taxul nga daan ko waaw. kon ñu seetaan ba ci kanam. non lamb jànq la. su combat bi jeexee naa la woo nga jàngatal ma. amu benn problème. kaay mbër mbër ak père Kayre loolooy échauffement Fall dañ koy échauffé échauffement ngi nii père Kayre koy échauffé wu. père daa mel yaa ngi yaa ngi yëngal xale bi de. waaw maa ngi koy yëngal waaw xale nag da nga koy yëngal parce que combat yi dafa ñoo ñor trop. te xale bu neex a liggéeyal la. tey sol ngaa sol blouson ñëw taxaw. waaw parce que xale bi moom moo ko jar déggal na ma sama doom la ne ma xam def ma baayam nekk si man ma koy tàggat li ma ko teg mu tegoo ko moo tax bës bi daf ma ñor tey trop trop trop trop sax. ñëpp meloon ni moom làmb gaaw de. maa la wax. alias Balde rek. léegi mu tàkk ci kawam. du ko ko may. caa trop tey saa ko aspiré pour mu ñëw de. waaw waaye na ko na na soor xeex daa wa daw na jëli ko. da koo bëgg a jaay doole caa trop bërekat la. daa mën a bëre. tere na ko xeex ba wax na dëgg xeex bi wóorul. lii mu dafa gën a wóor. ndax alliance Baldé day fëggante rek. day fëggante door na fi mari ba maar ba eh, xeex. waaye booy bi na koo jàpp. waaye tey ah. terewut ah mu ngay bëreeg booy ba de. Ah. Oh, oh doole doole. alliance dina daanu. xatar be alliance daanu na ah woy eh, amul doole. alliance doole ji newu fi. doole ji newu fi Caatu Rebeuss am na li mu bëre yoon la Caatu Rebeuss li mu bëre am na am na yoon li mu bëre ci yoon la ko teg technique feeñ ngi ne dafa xeex dafa dafa ah way wax na dëgg li mu bëre baaxul Caatu Rebeuss wala boog Alliance Baldé li mu bëre Lamine mënoon na ko bañ a bëre waa kooku itam ñu ngi koy échauffé échauffement tàngal yaram wi moom Fourrière ndandi faala ngongu taxaw waa Grand Yoff waa ndeysaan yëpp ci tàngal yaram la bokk day tax bar bi soufflé sa yaram nangu faal nga mën a bëre Fourrière borom Grand Yoff borom cité millionnaire gis nga faal lii mooy tax saw yaram nangu kot subaa nga koy liggéeyloo fuddal ndigili yëngalal ndigili man li ma jaaxal combat ndaama ngay gis tey mobile bëgg naa la. siyaar naa la. yaram wi daa tàng de. waaw mais noonu la laa mujjee tool noonu. lu waral xëccoo bi. non du dara dañ ko indi ba pare xam ko. yee dañoo xam li nekk ci. maa ngi sàngeen daw yëngatu bu baax. waaw mais deret jee yëngu nag ay mbër lañ. yee kii mën na ci moom dara wala. bu arbitre bi roccee loxoom. senegal jàpp seen gémmiñ su leen foogul. man maa la wax lii man mobile bindal nga denc. Ndandi Fall Ndandi bëgg waaw ah, ziar naa la grand frère. daa mel ni yaa ngi ci sa mbër ko pare de. waaw waaw combat bi grand dañ ko tan daanaan daanaan moo am combat. Fourrière daanaan la. bis yàlla na ko yàlla may ndam loolu lañ ñaanal. liggéey liggéey may ndam yàlla des yàlla na ko yàlla may ndam. te combat bi grand mbooloo dañ ko soxla. Fourrière a ngooŋ. Fourrière wax na. Mobile wax na. Fourrière. ba tey ñu ngay defar loxo ya rek ak mbagg ya lii ci la bokk étirement yi échauffé wu tàngal yaram wi ndeysaan cey lab mbër bëgg naa la Fourrière Fourrière ci loone sant yàlla bu baax am nga jàmm waaw mi ngi am jàmm bu baax sa waay na combat bi du yàgg de waaw waaw noonu la demee du yàgg ah. est-ce que nga lu daan kan koo kii man moom du Thiès si kanam lay xam loolu. waaw. ah mbëru mbapat la gars yi wax de. maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex si kanam dina leer. kuy daan dama mbapat de. rampe bëreeg samay morom ba egg si waaw bëreewu maa benn paa. mun nga gis ma bëreeg paa. Ah, noonu la fa taajo. kon ci kanam. ñu ngi koy bëggee. waaye Lamine ñaari mbër yi defanteeguñu dara. capitaine mi xanaa galon yi da koo fàtte këram. ñaari ah, loo ci mën a dégg seen combat bii day safagul neex de Fall. a Fall taalibe Baye Niass bi Fall. lan mu seexal islam. Fall mu borom faydu bi. Baye borom Medina. Baye borom Niger ak Nigeria. Angleterre ba Londres. Baye borom états xanaa Fall daanu nga génneel li nga yor. a ah, Fall joxeel dara Fall lu baax bes ko waxee des di joxe a ah, Fall mi tàlliwul de moo may filmal de waaye tàlliwul de nuyu naa taalibe bàyyi 5000 danga ma koy jox ma téye ay orange mo man de lamp yi buñ ma ko sampaloon ak yaay eh jàppante nañu jàppante Lamine bii combat bii combat du neex de combat bii ma gis nii waaw waaw waaw waaw pare na de dongali na de loolooy dongali. waa mais gerte wala bu. Eh, fàq nañ ko daan nañ ko waay suqi. Eh, eh, waay capitaine daan na suqi suqi saaf daanu nga. suqi da ngaa julli. suqi da ngaa julli. suqi saaf. waay ni mu tudde boppam daa yomba daan. alamin ah, suqi saaf daa yomb vraiment moo gën. bi loo ci wax. seytaane yi ñoo ko am ko indi suñu dëkk bi yan seytaane seytaane tubaab yi bëgguñu seen naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu indi est-ce que corona takku na ci loolu tubaab bi la tubaab yi bëgguñu ne bëgg seen naa Muhammad bëgguñu ko mais dal na ay ay nit ñu ñuul nit ñu fa lañ ko jëlee fa lañ ko jëlee lañ ko jëlee senegal fa lañ ko jëlee dëkk tubaab bi lañ ko jëlee indi ko senegal di nga dem Kazu Rajab ba Kazu Rajab ñu fay demee déggool sëñ Abdou Karim wax kon daal ku ne da ngay ne fi nga toog ñoo ñooñ fase ginaar jàng sa xasaayit ñaan sëñ fàllu Bébé Diène wan ginnaaw moo xees écrit sumbe jun arbi ba suuf le na maa ne xoolal taal jëlal loolu kaay arbi eh xeex kaay maa ne eh ñu xeex Fourrière a koy dóor dinañ ci dóor nit mu daanu Fourrière ak xeex nañu xeex bu sax laa ilaha illallah maa loo def nii maana lu mu def nii faal ñaari mbër yaa nga ca maana ñaari mbër yaa nga ca faal eh eh Macky Sall nee na coronavirus ba añ na la ñuy def tey ci ay ndaje waaye daa mel ni loolu moo xëy dëgg mooy gën a wóor waaw dina mat ak du mat bul jox sa loxo mu ngi koy dóor waaye Fourier ak Bébé Diène combat bi du yomb ñaari ndaama ñaari bërekat laa ilaha illallah faal nuyu naa la nuyu naa Modou Mané nuyu waa Leewtoo yëpp internet yi Leewtoo TV yi fu ngeen mën a ne Babacar a leen di bëggee Fall mbaa sa son baa ngay baax eh dóor mu bañ xalaat naa kuñ ciy daan lañ lay daani loolu laa yaakaar xalaat naa kuñ ciy daan DG teew Leewtoo calis mu ngoo ngu yónnee ay photo maa ngi koy nuyu waaye kiyaa Kiya bu Babacar ca Lengs sama séeri boobu nuyu naa ko bi ma bokk ak Modou Mané Kiya naa la waaye ana tuuti yaay Sarr ca Espagne ana Serigne Ndiour ca Espagne ana Asi Diagne ca Mauritanie Khadiros ca Allemagne ñu ngay doorante Abdoulaye Mbaye États-Unis eh jëkkati mu bañ ngañ soow taalibe Cheikh Béthio Thioune te am laa ilaha illallah Bébé Diène jël na ko lee Fall Fall combat ngi arène nationale yëngu na tey faq mu bañ mu delloo ko mu bañ da koo bëgg door tànk e maa ngi lay bëggee Khadiros Ndiaye Abdoulaye Mbaye ngañ sow États-Unis nuyu naa ñëpp tuuti yaay Sarr Serigne Ndiour yéen ñi ne à l'étranger coronavirus bu yàlla bu mu leen dal waaye fu waay ma na nekk yàlla bu mu dal ñi seen ñi ne Sénégal waaye coronavirus bu yem fi te dem yem fi te dem bul dalati kenn yàlla ne ñaan leen ma may leen ngeen sant ma dolli leen. ñaari mbër yaa nga ca ñaari mbar yaa nga ca Bébé Diène Fourrière waa Grand Yoff ak seen waa cité millionnaire waa Arafat lépp ci Grand waa Medina Kusum Rëbës waaw waaw lépp ci Medina combat bi xalaatoon naa li am ci de xalaatoon naa mu ne combat bu ñu ngay ca de lum ko bëgg a def Bébé Diène lu mu bëgg a def cey bii combat cey bii bii combat maa xamoon ne lii du neex lu mu koy dina ko daan faal ñaari mbër yaa nga ñaari mbër yaa nga ca lamin lu xew déedéet wóorul ñaari mbër yaa nga ca ah, ah am na client moom man kay naa la combat bi du neex Fourrière day bëre waaye ndengeen ju na Fourrière léegi dégguma la de loolu laa xalaat kuy daanu daanu bu ngay daanu eh da koo xëcc ñëw sànni bëgg mu bañ Fourier a ngi dóor Fourier a ngi dóor Fourier dina ko wër wala bañ na Fourier mi ndekete yéen ab Fourier la de kii ndekete Fourier ab Grand Yoff ci moom de waaye yéen Fourier mi boo xoolee ñoom ñaar ñaari ndaama lañu kii ware Medina Soumbédioune kii ware Grand Yoff mbooloo ca Grand Yoff Bébé Diène ca faar ya cey làmb waaye mbokki sénégalais yi xam ngeen ne làmb ji waroon am suba te Baba Diaw dëgg ko dootul am muy sox gàmmu gi lu fa jaar coronavirus moo tax jaam pexeem yàlla ak i dogalam bilaay jaam day sabab lu waaye yàllaay dogal yàllaay ñëw ak kii mbiram nañ ko nangu rek te yàlla tax addinaak looloo ànd bilaay Abdoul Mbaye bëgg naa la ngañ soog Omar ja ca Allemagne Saliou Khoule maa ngi lay nuyu borom Zik FM sama xarit boobu ñaari mbër yaa nga ca Saliou Khoule yàlla na sa jàmm yàgg seeri labato la yaama sëñ Saaliw borom xol bu nay sa ngong danaa ko Saaliw baaxal rek moo gën a wóor loolu dañ koy tere fourrière ñu ngay xeex wàccal maane maane ñu ngay xeex fourrière dañ koy gëdd dóor mu daanu hey Bébé Diène dóor na ko de dinañ dóor kenn mu daanu dóor na ko mu daanu fourrière a ngay daw war nañu ko ndombo wala eh Bébé Diène dóor mu daanu laa ilaha illallah eh protestant ya protestant ya protestant ya protestant ya ñaari mbër yaa nga ca faal combat bu méttee ginnaaw bàccante ay coup kim na coono feeñ na coono feeñ na coono feeñ na hyperkit dóor mu daanu hee bii combat ay waay bii combat waay lii metti di ñaari mbër yi seen combat bi metti na combat ngi combat waaw Lamine waaw looloo am Fourrière daa mel ni tey loolu la xam Fourrière daa décidé tey ci combat bi parce que nag Bébé ngay bëreel boo ne Bébé Diène la am dañ naan man combat ngi nii sëgg nañu sëgg nañu faal coono dugg coono dugg faal Fourrière fu mu jëm Fourrière foo jëm caxabal na ko mu bañ tëgg caxabal mu bañ Bébé Diène am na adversaire tey Bébé Diène tey am nga adversaire xool boobu kal Fourrière mi bërekat la de Bébé Diène ak Fourrière mi laa ilaha illallah jël ba mu ko rëy na jël ba ko bébé jën daan rëy na oh, jël ba rëy na waaye bii jël rëy waay xool per kayre xoolal per kayre bébé jën waay waay lamba ngi faal bébé jën daanaan kulu fatin daf na affaire xëcc mu ñëw mu tël ko mu dëpp Fourier jógal démérité woo bëre nga ba tas waaye Fourier jógal waay bëre nga ba tas xoolal per kayre nga yëkkati Fourier lii rafet na ay doomam lañu ay doomam lañu ay doomam lañu ay doomam lañu ay doomam xool gaay yi ni ñu wàccee làmb na ñëpp wàcc lii wóorul lii faal dara wóoru ci parce que nag làmb ji warul jeex rek ñu wàcc lii amul du yoon waa lii du yoon lii du yoon